wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi nuy seetaan ak dinu déglu ci seen almuxtasimina tv ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara bu baax di leen jéggalu te di leen baal xaq di ñaan yàlla suñu nuyoo ak suñu ziyaara fekk leen ci jàmm fépp fu ngeen mën a nekk ngi ñaan yàlla lépp loo xam ne woor nañ ko ci koor gi ak lépp luñ ci jaamu yàlla yàlla na ko yàlla nangu waaye lépp loo xam ne des na ci koor gi tam yàlla na yàlla may ñu fekke ko yàlla may ñu kàttan buñ ko mën a woore te lépp luñ ci defit yàlla na ko yàlla nangu ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa ngi ñaan yàlla koor gi yàlla na dàq korona bi ba bu koor gi jeex korona bi dem loolu yomb na yàlla yàlla mën na ko sañ na ko yàlla na ko yàlla def mbokk yi ñu ngi dellu si ci seen émission bi di njariñu koor ñu nekkoon ak yéen ci muñ jikko yi nga xam ne koor dina ko ja koor dinañu ko jàngal mu bokkoon ci jikko yooyu nag mooy muñ xam nga kenn du tudd koor te doo muñ parce koor moom mooy muñ fa tabaarakallaahu ñu ñëwoon nag ci ah ngëneel yi nga xam ne muñ dina ko jox nit ah bokk na ci yooyu yàlla wax na ne wala nabluwannakum bi cheyin min al xawfi waljuuci wa naxsin min al amwaali wal anfusi walsamaraat waaye wa basiri sabirin yàlla nee na dinaa leen nattoo ci lu tuuti bi in ci lu tuuti min al xawfi ci ragal dinaa leen nattoo tuuti ragal <laughs> wala lu tuuti ci ragal ngeen ragal te li ngeen di ragal lu tuuti la xanaa loolu mooy corona bi <laughs> loo xam ne bët mënu ko teg Bet manu ko gis waaw yoo xam ne moo gën a tuuti fel ah, sax tabaarakallaahu nga xam ne microscope rek moo ko gis nee na dinaa ko nattoo ba ngeen ragal ngeen ragal ñu confiner leen ci seen biir kër yi ngeen ragal ba du ngeen bëgg a génn ndax ragal ku leen wàll ngeen ragal tabaarakallaahu dinaa leen ko nattoo dinaa leen nattoo ngeen xiif koor a ngi nii doy na sëkk ci misaalu xiif dinaa leen nattoo ngeen xiif dinaa leen nattoo ngeen am alal ju wàññiku ba lépp lu ngeen doon am ci alal mu wàññiku bu ngeen doon am lu bari tey seen genn wàll gi ngeen doon am ñu tëj seen marché yi liggéeyatu leen ñu tëj magasin yi liggéeyatu leen ñu tëj liggéeyukaay yi liggéeyatu leen yooyu yépp muy lu waroon dellu si yéen man yàlla dinaa leen nattoo ba seen alal yooyu wàññiku bi ci des mooy wal anfusu dinaa leen nattoo tam seen bakkan yi ma jël ko jël seen ay bakkan gis nga corona bi ñu ci yàlla jël ni ñu bare naa leen ko nattoo jël seen papa wala ma jël seen yaay jël seen xarit tabaarakallahu jël seen mbokk jël seen doom jël seen jëkkër mbaama jël seen jabar jël ku leen jege nattoo xool tabaarakallahu nattu leen ko dinaa leen nattu tamit ci mbay yi ngeen di bay bu ngeen doon bay di ci am lu bari tey mbay ma sax dafay far faf yàqu mbaa li ngeen di récolter lu tuuti lay doon tabaarakallahu yooyu yëpp dinaa leen ko nattoo ci gàttal waaye bu boobaa na nga bégal yow yenent bi ñi nga xam ne bu leen loolu yëpp dale dañuy wax ne ñun de ci yàlla lañuy jóge waaye ci yàlla lañ dellu daal di koy muñ muñ gu rafet waaw wa basiri saabiri na nga bégal ñi nga xam ne dañuy muñ muñkat yi nga xam ne bu ragal ñëwee ñu muñ bu xiif ñëwee ñu muñ ju bu wàññi ku alal ñëwee ñu mun bu bakkan yi di dem ñu muñ bu mbay mi yàqoo ñu muñ yàlla neen na nga bëggal ñooñu xam ne ñooñu daal tabaarakallaahu seen pay lu rëy rëy lay doon fata mu ne ulaayka alayhim salawatun min rabbihim wa rahma wa ulaayka humul muhtadun mel ne ah loolu tabaarakallaahu salawaat ay ngëneel ak i ay may ay xéewal yu jóge seen boroom ay yërmande yu jóge seen boroom ndax ñooñu daal muñkat yooyu dëgg-dëgg mooy ñi jub tabaarakallahu kon yàllaa ngi bégal képp kuy muñ bu la tegee nattu beneen bi ci des yàlla nee na bu ngeen amee ay noon yu leen di pexeel ngeen am ñu leen bañ ngeen am ñoo xam ne bëgguñu ngeen dem ñu leen ñoo xam ne seen ite yépp mooy ngeen yàqule la yàlla nee na bu ngeen muñee nag te ragal yàlla ñooñu duñ leen mënal dara moom lay wax naan wa in tasbiru wa tattaqu laa yadurukum kayduhum shay'an inna allaha bima taamaluuna muqiit nee na bu ngeen muñee te ragal yàlla pexey noon yi duñu leen mënal dara pexey pexekat yi duñu leen mënal dara pexey iñaankat yi du leen mënal dara parce que moom yàlla moo peek lépp lu mu mën a doon kon bu ngeen muñee te ragal yàlla rek yàlla nee na man maay nekk seen défenseur ba dara du leen mën a lor tabaarakallahu bi ci des yàlla mi ngi ñuy wax ni yéen ñi gëm yàlla dee leen ndëgërloo muñ yàlla ni na wax ne istainu bi sabri wa salaat inna allaha maa sabirin yéen ñi gëm yàlla dee leen dimbandikoo muñ ak ragal yàlla na ngeen xam ne moos yàlla mi ngi ànd ak way muñ yi ñépp ñi nga xam ne ay muñkat lañ yàlla ngi ànd ak ñoom ah doy na sëkk nag ci garaat doy na sëkk ci martaba doy na sëkk ci garanti yàlla ànd ak yow gis nga yonent bi sallallahu alayhi wa keroog ba mu nekkee ca xuntuma jóge Makka jëm Medine am Quraysh yëg ni génn na ñu takk seen ay fas ngir bëgg koo dab fagagal ko ba ñu ñëwee ba ca xuntu ma fekk yonent ba ak Abubakar ña nga ca xuntu ba tabaarakallahu ñuy gis seen tànk yi nii ñu jege leen lool Abubakar di tiit mu ne ko waaw bul ragal ndax yàlla ngi ànd ak ñoom waaw saanis nay ni is huma fil is yaqulu li saaxibihi la taxdan inna allaha maana mu ne ko bul ragal mukk ngir yàlla ngi ànd ak ñun tabaarakallaahu lool tam ba yonent bi yonent yàlla Muusa moom tam ah, dawe fëx tabaarakallaahu ah, Ibrahima wala Firawna moom tam tabaarakallaahu di ko dàqi moom ak ña yàlla ba ñu demee ba sës ca géej ga la Muusa wax mooy bu leen ragal ndax inna maaya bi maa ngi ànd ak sama borom mu mel ne yàlla nee na ñi nga xam ne dañuy muñ daal man yàlla maa ngi ànd ak ñoom bi ci des tabaarakallahu ñu jeexale ko ndax yaatu na lool yàlla nee na innama yuwaffa saabirina ajrahum bi xayri xisaab nee na li may fay muñkat yi daal muñkat yi man yàlla li ma leen di fay kenn mënu koo natt xanaa loolu mooy koor <laughs> oto ñu ne muñ daanaka mooy koor xam nga koor yàlla nee na bépp jëf bu doomu aadama di jëf yàlla man da koy booleeg benn malaaka bu jëfee benn bu baax mu fay ko fukk mën na koo fay ba ca juróom-ñaari téeméer mu ne ba mu des koor mu ne bu fekkee koor nag man yàlla maa koy fayal sama bopp tabaarakallah xam nga ne ku tol ni yàlla bu dee fayal boppam loolu timit ajrahum bi xayri xisaab lu kenn mënul natt la moo tax yàlla ne innama yuwaffa saabirina ajrahum bi xayri xisaab nga xam ne daal ñooy muñ li ma leen di fayee lu kenn mënul xam la lu kenn mënul natt la tabaarakallahu kon muñ mbokk yi lu am solo la yàlla sax mi ngi tagg benn jaamam buñu wax ayub ndax ndeysaan dafa mënon muñ ndax ya dafa amon ay alal yàlla yob alalam mo am ay njabot ay dom yàlla yob domam yi mo am ay soxnam yàlla yob soxna yi bam dess ken mo am ay tol yàlla lak tolam yi mo am bien yu bare bare yàlla jël yi mu amon yépp waye salitul ben yon mi ngi muñ xamna yalla ko ko joxoon yalla ko jël يتح يالا تقوكو إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب من أهله أبدا إلا وسيمه في